seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin nahmaduhu wa nastainuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa naudu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shahadatan nattaqi biha adaba jahannama wa adaba alqabr wa fitnat almasih dajjal wa fitnat almahya walmamati wa gadab allahi wa iqaba wa nabtaxi biha ridwan allahi waljannata wa nastaxfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayy alqayuma wa natubu ilayhi bismillahi rahmani rahim kon tey ñu ngi tàmbalee ci aayab juróom-ñaar fukk bi ak juróom-ñaar sooratu Taaha lañ daan fàttali rek lañuy fàttali du tafsir jéem a setental jéem a jéem a jàng jéem a xam rek la tafsir mënuñu ko jéemuñu ko ñemewuñu ko sax jéem waaye nag gannaaw borom bi def li yadabbaru ayaatihi wa li yatadakkara ulul albaab loolu rek la ñuy jéem tadabbur bi rek la ñuy jéem ndax it nag mu yóbbeenu ak fàttali tadabbur gi nag li muy jariñ mooy loolu mooy ràkk wa li yatadakkara alxuraan boo gisee ñuy digle bis bu ne nga jàng ko di digle bàyyi la nga jàng ko yoon woo ko jàngi rek daf laa war a dolliwaat ab xam-xam yoon wu nekk moo tax nit ki di nekk doon ne moom alxuraan moom xam-xam yi ci nekk du jeex mukk ba ba nit ki dajeeg ak lu mu jàng-jàng lu mu géeju géeju waaye yoon ko rek na ñëw euh, dolli la euh, ndollante loolu nag gë ca gën a am solo gën caa rëy gu lay jóge ci yàlla lay doon moo tax nag loola it mata mata waajal ni nga cay dolli ci yoon woo ko jànge wu ne na la amee ndollantu loo xam ne itam nag lu mag la dëkk ci yàlla lay jóge loole itam nag moo tax dëkk ci di seetal xol bi baax ak di ko laabal ndax yàlla defal la ci ndollantal boppam boobu te mooy ragal yàlla wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla rek Euh, yàlla daal di leen di defal ak xamal xamalu yàlla nag mooy doon li nga xam ne moom leer la ko muy sànni ci xol bi leeru xam-xam la ko muy sànni ci xol bi du amuk yemukaay leer googu nag toujours xol bi koy taatan mooy xol bu set yàlla dafa fonk yiwam ba du ko def fu taq du ko def fu tilim moo tax jàmm bi li muy gën a dimbandikoo ci sàkku xam-xam mooy setal xolam ak leeral ko euh, jéem koo seetal wecc ci mboolem yi nga xam ne daa mën a tilimalu xol da koo mën a lëndamal te mooy mboolem yu araam yi ak yu sib yi ak yi nga xam ne tax yëf yi adduna dong la bu araamu sib su ko jëf yi adduna dong la yooyu yëpp daa mën a xajal war xol daa da koo mën loolu la ñu tuddee ataxliya bu noppee itam nag bu ko ca laabalee loolu bu noppi jéem koo leeral naññi nag ci mboolem yu ñu sopp yi ak yu ñu taamu yi ak yi fàttalee alaxire loolu la ñuy tuddee ataxliya yaar yooyu moom la sëñ mag bi naan ataxliya qabla taxliya il faut taxliya daa war a jiitu taxliya door a waaye boo defee taxliya te defoo taxliya ga kon xajam ya fa fekkoon far yàq taxliya ba kon nettoyé ba mu set bi da cee euh, bu ko defee kon mu ne fu ñuy tàmbalee laqad aw xaynaa euh, bismillahi rahmaani rahim wala xad aw xaynaa wax yu nan ilaa Muusa jëm ci Moussa bin jaareeg moom foofu mun nu nettali ba fam jaar ak saxaratu yaag yu demee noonu an ay lu ma jublu ci wax yu gi asri ibaadal bi ibadi ci sama jaam ñi te muy bañoo Israil gii firaw nay fitnaal ak a lor rek rañaanal ak ñoom daw rañaan mooy daw ca guddi dem yont yàlla Isa dañ koo digalul woon geer te bépp yonent buñ digalul geer rek doo am droit guerre moo tax problème beeg ci xaw na li muy yàgg yàgg gisoo mu jëfandikoo guerre guerre yonentu yi néew ñoo ci am ndigal li ëpp ci yonent yi amuñu ndigalal guerre te fekk amu ko rek du ko sañ mukk moo tax Seydina Muusa lu mbir ma metti euh, dawal rek ngay dégg ñu di ko wax dawal rek waaye mu amul ndigal ci guerre du ko sañ kon an asri sa rañaanal bi ibaadi ci sama jaam yi loola day tegte la ne na def na lu rëy ndax mënoon na ko ne asri bi bani Israil waaye ba mu leen tuddee bi ibaad yi la xam ne Firawna def na lu rëy fekk ñoo xam ne samay jaaba nga def leen bundu xataal mel nii ba xajatuñ fi dañoo xal seeta dem waaye itam wone gu fonk gum fonk bani Israil ak gu rëyal gum seet bi tax wóoyewu leen ci bani Israil xëy na tuddee ibaad yi ndax yàlla mu saa bu la tuddee ab di rek teg na la maqaama bëgg na kawe nag ci maqaama yi nga xam ne moom la falab jaamu war a mën a àgg wayu na fa la maqaama abdullahi yadoo waxaaka daal yonente bu ne gis nga fa ko yàlla bàkkee dëgg nag abdi la ko fa tudde wala abdana kon an asri bi ibaad yi bu ko dee fadrib na nga tëral lahum ñeel leen tariixan aw yoon fil baxri ci géej gi te mooy na leen xàllal ci kaw géej gi yoonu xar baaxu woo xam ne yabasan day wow koŋ moom du doon ndox moo xam ne boo ca jaaree di tooy wala di lab wala di nuur na wow koŋ ba mel ne wu doj mel ne ab tëli rek wax nañ yoon wa daa meloon ne li ñuy wax auto autoroute léegi bu ko defee nag laa taxaafu doo ragal darakan ak jot wala tax saa doo ragal itam ak lab ndax jëm bañ demee ba àgg ca géej ga nag dañoo tiitoon ne firxaaw ne a ngi duy bëgg jot ndax dem nañ ba séen ko moo gàngooram gi nag ñuy ñëw te géej gi baare leen jëm kanam jëm ci géej gi wala taxaw fir na jot la te ci nekk nag mu musiba la mu ne ko nag léegi door rek boo defee nii ma la wax door yet wi ci géej gi rek mu daal di doon ruut boo xam ne ci ngeen di jaar doo ragal mukk ne firxoon dana la jot du ngeen tiit mukk ne da ngeen lab fa at ba ahum mu dab leen nag firawnu ah Firawna daal di jóg nag dab leen ba mu yëgee ne gaaya dem nañ rañaan na dem nañ ca guddi mu ne ñooñu duñ leen bàyyi mukk ñuy toxu di dem feneen ci adduna bi di bañ jeex rek moo ma ne fa adbahum mu dabi leen Firawna bi junóodi yi ànd ak soldaaram ya nag wax nañ mat na juróom-ñaar téeméeri junniy soldaar ñi mu àndal waaye ba ñu demee ba àgg nag ba lab loola lépp xese ba lépp gis nga da koo tënk rek ba xas waaye da def ca xese ba lépp xamoon nga ko tëral na yet dóor na yet wa ci géej ga yet wi daal def ab autoroute bu ne sayit ba dale fi géej gi yem muy géej gi ñuy wax baxarul xalsam ba fa mu yem lépp di xàll wu wow koŋ ñu daal di jaar ba jàll firaw naan mbooloo mi itam nag agsi bi mu agsee rek fekk route bi tàllee noonu mu daal ne gaa ñum tàndal ah Moussa jabar na géej gi de Moussa jabar na géej gi de gaa ne ko waaye gannaaw ab boroom nga gannaaw nee nga yoway rabbu jaar fi ni mu fi jaar da nga fi mën a jaar ni mu fi jaar waaye booba yi taxul fit yu ñeme taxul fit yu ñeme waaye wax naa Seydina Jibril mu war daal di war wenn wajan te fekk firaw naa ngi waroon fas wu góor wajan waa daal di cëppeelu rek ca kaw pom ba fas wu góor bu séenee fas wu jigéen da koy xemoon ne day fettax wuti ko nee nañ moo daal di fettax rek daw ca jaar ci kaw pom ba wuti wajan ba mu dawee nag wuti ko ak gaa yëpp daal cay toppi nag ndax ba weleen wi lew ba ñu demee ba ñoom ñëpp ñu suubu na ba ñëpp a ngi ci digg pom bi nag pom ba sotti kuwaat am ndox foofa lañ lap ñoom ñëpp nag jeex moo tax mu ne fa xasiyahum mu muur leen minal yemmi ca géej ga maa xasiyahum la leen ca muur ndax duus yi kebaloo di duus yi sotti koon ay montagne yi doon yëpp kebalaa war da sotti ko ndox ñu lap la leen fa muur nag ci xeeti njàqare ak xeeti jaaxle ak xeeti caalit day loo xamante ni biir rëy na rëy boo xam ne mënee su ko wax moo tax mu lum lëm ko ne maa xas yéexum rek alxuraan day waxee noonu wala ne la mbir na rëy boo ne mënee su ko wax moom daal doon na la mu doon rek mu jeex kon daal fa xas yéexum mi neen yëm mi maa xas yéexum la leen muur wa adal la sànq na firawna mu xawmahu nitam ñëw wa ma hada te gindiwu leen firaw nag mboolem ñooñu ko gëmoon de daf leen a sànq waaye gindi woon de Euh, mu loola ma ngi ko jubloo tontal la Firawna waxoon nit leen nitam leen maa uriikum illaa maa ara wa maa ahdikum illaa sabiila rashad teguma gin teguma leen gindihuma leen dul gindi leen teg leen ci yoonu njubam mu ne déedéet bis nekk tey ji xam nañ ne gindiwu leen da leen a sànq moo tax ma ne waa àddala sànq da Firawna ko woon ndax lab nañ ci géej gi te duutuñu deltiwaat ci adduna mukk ñu ngi ci ak mbugal ba yowmal xiyaamati ba yowmal xiyaamati ñu gën faa nekk ci mbugal ba xiyaas bi la kon kooku def leen sànq wa maa kon <clears throat> yaa bani israila yéen bani israila fàttalikuwaat leen fi ma jaar ak yéen ci ay xéewal yu bari njëkk ma euh, gannaaw bu ma leen musalee ci firaw na itam kon wax na leen xéewal gu rëy gi defal musal leen ci firaw na ci xar baax yu rëy boobu bëgg cee limaale itam yeneen yum ci boole ndax yàlla xéewalam wax dëgg dafa ba waxtu wu ne day bëgg nga di ko xam par benn par benn donte doo mën a xam lépp it yow del du par benn ndax nag lu mën a xew inter doon neexante lay laa tox suuxaa waaye bëgg na nga di ko fàttaliku di ko xool benn bu ne nga di ko ci jéem a jaral euh, euh, euh, beral cantoog boppam te kem kàttan ne doo mën lépp waaye boo defee la nga mën mu wuutal la ca la ca def àggale la ko ba noppi jox la tiyaaba kon moo tax yàlla bari lu muy lim lool ci alxuraan xéewal yëm nuy defal nay taw ba nay ngelaw la nay leeru gañ jànqte ba nay gàncax ga nay jur ki mu wàccee nay nay yu kenn munta lim yooyu lu ne boo gisee mu dele ko fàttali ci alxuraan bëgg benn bu ne nga dëkk ci di ko cosal te bañ koo fàtte ñu defal la xéewal ba noppi nga fàtte ko du ngor du cant ñu defal la xéewal ba noppi yëgoone defal nañ la ko du cant du ngor ñu defal la xéewal ba noppi xamoo kii la ko defal du cant du ñu defal la xéewal ba noppi nga dem di ko bàkkee keneen ku bokk la kii la ko defal du cant du ngor kon